mbokki jullit yi mbokki taalib toogaat fii ci kanamu sëriñ Basiiru waxtu yi nag ni si daaw niñ ko defe woon eh, baaxoon ko def ay ati at mu doon ak cant gu rëy eh, gu jóge ci mbokk yi yépp ñeel suñu borom ak sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañuy liggéey rek ne sëriñ bi comité d'organisation bi ni ñu ko baaxoo defee ñëpp laxasaayu nañ ngir jëm yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba fas yéene taxaw ci sa ginnaaw ànd ak yow liggéey bi nañ ko baaxoo di defee ak matuwaay yi ci war a yëpp ànd ak nag euh, naka jëkk ñu ko daan defee ñu ko daan ñu ko daan ànd ñu ko mas di àndal waaye ak euh, taxawaay yu bees yoo xam ne. gën a dëppoo ak jamono la ak euh, contexte bi nga xam ne moo am ci àdduna di euh, pandémie bu metti ci yàgg lool daaw ba ren mu nekk fii euh, jaaxal ñëpp waaye nag yàlla suturaal nañu daaw ñu taxaw ko nañ ko daan taxawoo yàlla def ci ndam ñuy rafet njot bu baax ak ñaan yi fi jàll ak taxawaay yi jàll yépp ne ren ji ci lay gën a Euh, tegoo ci aw yoon buñ ci doolee expérience euh, xam-xam bi nga xam ne njàngat mi nga xam ne amoon nañ ko ci daaw buñ ko ci doolee ñu ngi rafet njot bu baax ci ne ren lay gën a tegu ci aw yoon ñëpp daal ñu ngi lay xamal ñu sa ginnaaw fas yéene ànd yow liggéey bi incha allah ci kàttanu yàlla jërëjëf. kon ginnaaw yooyu ñu daal di déglu nag. Euh, sëriñ Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ginnaaw kàdd yi sëriñ Ousmane yëkkati wax na ñëpp takk nañ seeni laxasaay fas yéene ànd ak moom nañu ko defe woon daaw ñu defee waat ko nu ko raw di ci ñaan dimbalul yàlla ak kàttanuk Cheikhuna Ahmadul Khadim kon ñun ñëpp ñu maase déglu Cheikh Mouhamadul Basir والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بوكو جلدي بوكي تالبي نيجي لندن نيو باخ باخ دي شياري دي لين روكيل دي لين جوتلي كادو نيو kàddu yi cant ak i ngërëm yu bàyyi ko ci ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi jëmmi Sëriñ tubaa tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg ci loolu te ànd ak wér suñu bam dolli ko wér ak kàttan ba naal yu rëy yi mu am te dara génn ci lislaam dara génn ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko du ko bëggee ñu fas yéene dellu fii nag niñ ko baaxoo defe ci waxtu wi bu màggale Tuubaa gi desee diir bi ñu toog fii ci ndigalam ndax màggal gi liñ ciy def lépp ak lépp lu jëm ci yoon bi rek moom mooy boroom ndigal li mooy boroom xalaat bi mooy lépp suñu see seq benn jéego walla ñu def ci benn xalaat te bàyyi ko ci moom kon ñii wax nañu wàññi seen kàddu ñu ngi jeexase suñu wax ji wala bu fekkee mënuñoo ñàkk waxtaan ñu génn ci biit saal bi nit bu ko bu ko dara taxee jóg da koy fullaal waaye ne ci biir kër Sëñ Tuubaa ba noppi mel ko ne ci biiru marché loolu dëppootu koy teggin te kër gii kat waxtu ne ma di ko fàttali ñi fii ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu koy def kër Sëriñ Tuubaa pëstéef bu rëy rëy la ko defee woon moo tax ñi ko xamoon sax daawuñ fi solee daal ngir xam kër gi mu toll ak baatin bi làmboo kon loolu mën nay bàyyi xel lii ñuy def itam du mbirum àdduna mbirum pëstéef la di mbirum Sëriñ Tuubaa ndax ndigalu Sëriñ Tuubaa la loo xam ne moo ko santaane liñ am lépp ñu am ko kon nag ku ci dugg pëstéef ak jiite ak sellal nga ci war a deme ndax boo ko defut rek ndax sa bopp ngay def te la Cheikh Mamadou Fadil daa wax sëriñ Touba nañ ko dugal ci roog seen ndax nit yaakaaram du ko foyee kon ci ndigalul sëriñ bi ñu ngi nuyu ñëpp ni ko Serigne Ousmane Mbacké waxee ci tàmbali bi te bu waxee wax na ci turu mboolem kuréel gi nga xam ne ñooy saytu màgget gi yëpp ndax ba nga xamee ne a Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké tegoon na ko ci sama loxo laa waroon mboolem njabootu Serigne Touba gépp boole ko fi nekk Serigne Touba nga yëkkati ndaw boole ak moom moom mii boobu Serigne Amadou Mokhtar moo boole ak moom ñi ci des ñëpp itam noonu la demee ba liggéey bi daj ñi ci mboolem kër Cheikh Serigne Touba ngir xam ne Serigne Touba noonu la doxale yoon wi mënuñoo tàggoo. moo tax ñëpp ñu dugal leen ci ñëpp ànd ko ngir liggéey bi gën a mën a jag boobu ba na gën itam at mu jot ñoom ñëpp ñuy gën a def yitte di gën def posté bi gën a def taxawaay ngeen ko mboolem ko fi nekkal Serigne Touba daal seere leen kon fi ñu tàmbalee wax ji rek ci ndigalul Cheikh Mouhamadou taxa mooy ndokkee ñépp ci at mu bees mii waaye di siyaare ñëpp ak a fàttaliku bis bii ndax bis màgg la ndax ci la Serigne Touba ñibbisi woon Touba te Cheikh Mouhamadou Moustapha andi ko fi kon bisu bàgg na buñ ko tànnee tey tàmbaliwaat ci liggéey bi ñuy bëgg a def loolu mën naa nekk mubaarakul ibtidaa yi kon yàlla nekk mooy munul intihaa yi ci barkeb ki ñuy liggéeyal bis bi kon bala ñoo dugg ci li waral bis bi muy màggal gi Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon na ne mi ngi nuyu àdduna sépp bayuur kenn rawatina alaalamu islaami yépp bayuur kenn rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la siqal réew mi bayuur kenn rawatina nag bokki kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoo moom ñoo bokk mission bi ñuy def te suñu borom diggee ci alxuraan ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum nee na mi ngi jokk bokk lislaam gi ci ñëpp bàyyiwu ci kenn di leen siyaare di jokk bokk gi bokk lislaam gi ak bokk der gi ngir xam ne liggéey bi ñoo moom ñoo ko ànd te kenn ku ci ne la la war ci sa digg moom ci rafetal ak jokk ko yaa ngi koy def kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant kilifa diine yëpp di jaale nag ñi nga xam ne bàyyeekoo nañ fi mooy suñu kilifa bopp yu fi bàyyikoo ci biir yoon bi xam ngeen moo ko limee sax dafay juum waaye ci kër yu mag yi xam ngeen ne am na suñu ay waajur suñu kilifa yu fi bàyyikoo ñëpp sëriñ bi moo leen taxawal boppam mi ngi leen di siyaare di siyaare njaboot gi di ko siyaare taalibe waaye itam di siyaare kilifa yi diine yi nga xam ne bàyyikoo nañ fi ñoom itam di ay kilifa ci senegal ñoom itam fenn fu ci ne sëriñ bi bu ko mënoon moo fay defal boppam waaye yónnee na fa ndaw ñu teewal ko fa ngir ànd ak ñoom naqaroo kon mi ngi siyaare kilifa diine yépp di masawu itam ci ñaar yi nga xam ne moo fi benn bi di mooy mbas mi nga xam ne sunu borom moo ko wàcce ci kaw suuf mu ngi ci masawu àdduna sépp rawatina ñi ci ñàkk seen bakkan waaye nag nañ xam ne képp koo xam ne faatu nga ci biir mbas ci li lislaam wax shahid nga mooy attab ku dee nga ca xare loolu kon kenn ñaanu ko yàlla waaye ku ci faatu itam wala taxsibanna llaziina qutiluu fi sabiilillaahi amwaatan bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun rek lañ koy jàppe farihiina bimaa bimaa aataahum min fadlihi kon mi ngi nuyu kilifa diine yëpp bayu benn tarixa nag waaye day mel ne kon bu tànnee Serigne Babacar Sy Mansour bi nga xam ne mooy alxalifatul maam di tarixati tijaniya tudd ko ci tuddaale nag këri diine yépp bayur kenn muy suñu mbokk yu tedd yi nekk walax di njabootu alhaji abdullahi ibra alhaji maam abdullahi jas ak di waa suñu mbokk waa njaasaan ak njabootu cheikh amaru fouti yi ba ci njabootu laayeen ba ci suñu mbokk waa cana ba bàyyiwuñ kenn ndax boo xasee lim sax da ngay juum li wala fi di wax naan fu lim fàtte waaye kon buñ ci tuddee suñu Babacar Sy Mansour ala rasihim tuddaale nañ ñëpp di ko santit bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne waxtu ne mu ngi koy yëkkati ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci rafetal ngir bëgg lu gën a dëgëral bokk gi ak lu gën a dëgëral diine ji kon seriñ baa ngi koy sant moom itam di ko gërëm di gërëm it kilifa diine yépp ci seen taxawaay ci réew mi ak ci seen taxawaay ci musiba mi suñu borom wàccee ci kaw suuf muy mbas mi moom moom mi mënees na ci wane taxawaayam ndax àdduna sépp xam nañ itte ji mu ko jox ak taxawaay bi mu ko jox kon ñu ngi koy ñaanal mission bi nga xam ne doon na ko ci ay magam doon ko ci ay waajuram doon ko ci maamam yàlla dimbali ko ci mu àggale ko ba lépp ni mu ko yéenee ndax daaw na gën daaw sëriñ bi yónni na fu mu wax kàddu yu rafet mu wax ne waxal Cheikh Mouhamadou Mountakha ne ko na xam ne gépp kàddu gum dégg te méngoowut ak kàddu gu rafet bàyyi ko fii bu fi tuddoo bokk ci njaboot gi te xam naa ne li am fii mu am foofa loolu waxu ko yam ci waaye mi ngi koy jëfe kon sëriñ baa ngi koy sant waaye ni mu ko sante it ne la sant ñëpp ndax kenn ku ci ne cër ba nga ko war a sedd sedd nga ko te desul dara kon fii àdduna si toll mbas mi li Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon rek mooy li ci am mbindeef mu suñ borom yabal la ñu itam ñuy ay mbindeef yàlla fu mu ko jaaroon rek fare jaara Cheikh Mamadou Mountakha taxaw ci ci réew mi taxawaay bu ma sëkk loo xam ne lépp luñ ci war a taxawee def na ko ba matal ko sëkk ci yëkkati alalam joxe diggal taalibe yi rawatina waa Touba ca kanam ñu àndoon ko ak waa dëkk bi ci ñiñ quarantaine noonu ndax xam nañ ne jafe woon na ak mbooleen taalibe bu ci waay man rek lu ci waay man nga ànd ko ñoom ngir dellu ci aaya bi suñ boon wax ne li yunfiq zu saatin min saatihi wa man qudira alayhi risquhu falyunfiq gàddaay dëddu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu indaale ab sërite boo xam ne xet li mu ci képp lu ci jublu man ko leeral wax ne bi ma demee bi ci géej gi damaa meloon ne ku ñu ko amee xetu lakkoroñ ñu bàyyi xet ga ci sama loxo képp ku mu nuyu ku ne mun na moom a lëkkaloon te booba waxuma de bi am lëkkaloon waaye xaw ma fa lëkkaloon nekk nga mën a kon nag li li ngor ak jom ci man mooy fexe ba wuti lëkkaloon mu ne waaye booba ndimbal ak lislaam ak lixsaan ñëw ma ci nabiyul mursal ñëw ma ci malakul muqarrab kon ba mu dem ci géej gi dafa laxasaayu boo fekk na mu am daraja qurbaaniya daraja xutbaan yi xam nga ni ci la daraja am waaye mu dee wuti lii nga xam ne tey mooy ila yaqaada llahu maalam yëkkun yi wala yëkkun abadan ko suñu borom fayal muy loo xam ne ba adduna sosoo ba léegi nii kenn mës a gis Sëñ Tuubaa ko yàlla defal te séntu ne yàlla dana ko ñëwaat kenn dafa ko bind kon loolu wet boo ko làmb rek gis ko fa boobu nga xam ne la ko suñu borom defal kon mu dem ndax saayu يدعون للختم خيط رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا احنا لو دنا بكل هجوم نصرا بي دنا بلوك كيف كيف دنا بلوك لسه عم تبصوا طب هو بعد نبو دنا بلوك